Mamadou wan maa ngi lay nuyu. waaw maa lay nuyu man tam. Mamadou <laughs> Wane nuyu sa auditeurs yëpp. d' accord jërëjëf Mamadou Wane nga nekk sociologue nekk expert en analyse politique et mhm. sociale euh, tey jii naka ngay analyser euh, déplacement bi nga xamante ni premier ministre Amadou Ba nekk aussi candidat à l'élection présidentielle de 2024 amal na ko ca wetu xalif général de mouride pour ab dérogation parce que ñu ngi fàttaliku ni euh, xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké dafa daal di tëjuloon ay buntam ñi nga xamante ni moom mooy ay candidat yi à la présidentielle tëjal tëj sax buntu la cité religieuse religieuse est-ce que naka nga gisee déplacement boobu lay nga xam ni PM bi amal na ko ca Touba. bon xam nga loolu moo tax euh, euh, di jaxase c'est-à-dire que xam nga soo nekkee premier ministre nga dem seeti xalif xalif généraux yi euh, c'est normal <laughs> c'est normal parce que quand même bañ nañ la kii boobu noonu gëdd boobu <laughs> mais su dee par exemple lu ci laxasu loo bëgg ne par exemple jaxase li nga xam ne mooy sa sa taxawaay premier ministre ñu taxawaayu état da nga jaxase ko ke taxawaayu candidat alors te soo waree respecté te moom moo war a njëkk a respecté tant que conseil wu ko sa candidature accepté nañ ko yoon ñëpp a yam parce que aussi dafa am la nga xam ne politique dafa am lu ñuy wax ngor politique noblesse def ci yam doit profiter ci sa situation sa posture pour yow jaxase premier ministre beeg candidat bi parce que lu tax sama sama xel mi ba c'est normal mu dem seeti xalif bi vraiment man aw ma ci benn problème <laughs> bon su dee aussi dafa ñaan délégation bi pour ñëpp bien que war nga respecter à mon avis parce que à un moment donné aussi am na délégation bu mu def pour que ñu mën a voté Touba centre yeeg yooyu ñu mën a def parrainage yooyu yëpp nangu na ko <laughs> nangu na ko donc moom lu mu dox li est-ce que daf ko dox pour candidat yëpp ou bien boppam la ko dox loolu man xaw ma ci dara su ko defee tam aussi matul parce que li fa da mat da mat man parce que pour nga jiite ma da ngay mat ci lépp nag kooku moom bu ngeen jiite da mat dafa da nga xam ne ëpp nga ma ko mais soo demee ba nga xam ne politique amatul ngor <laughs> wut rek naa kii nguur loolu sax mooy suñu problème ñu problème donc pour répondre ci sa question boobu wax dëgg yàlla su ko defee pour la république pour tout le monde l'égalité de tous les citoyens sénégalais même ñu nekkul candidat <laughs> même ñu nekkul candidat xalif bi am na droit ñëw parce que aussi moment intense la di ñëw ki ñëw ki ñëw parce que moom tam suñu recevoir ñëpp la ñu recevoir <laughs> ci déjà période bi où il y a xaw ma ñaata ñoo déclaré de ça bon man noonu laa ko gisee que que que que on est vraiment de consacré bon moom nag pour revenir vraiment ci point boobu pour ma jeexal ci su dee daf ko def premier ministre d'un gouvernement qui est là pour tous les Sénégalais parce que soo xasee nekk gouvernement nekk ministre premier ministre waratoo fi nekkal ca une partie des Sénégalais contre l'autre partie voilà Euh, léegi Mamadou Wane ma laaj la si euh, li nga xamante ni moom mooy euh, déclaration bi nga xam ni président Macky Sall amal na ko ngir ñu amal li ñuy wax retrouvailles de la famille libérale est-ce que yow lu mën a nekk la parce que doon nañ fi dégg maître Abdoulaye Wade ne ñun tamit dañu bëgg a def comme socialiste yi jiite réew mi pendant cinquante ans loolu lu mën a nekk la est-ce que ñeneen ñi dinañ pare pour fekki président Macky ñoom IDEC waa bokk gis-gis waa parti démocratique sénégalais euh, bari nañu pour retrouvailles famille libérale yi euh, pour ñu mën a réaliser rêve Abdoulaye Wade mooy libéraux yi toog ci bopp réew mi pendant cinquante ans noo ko analyser appel bu président Macky Sall. non sañ-sañam la sañ-sañam la bon surtout que euh, maître Abdoulaye Wade moo ko njëkk wax. mais li may jàpp mooy moom ba mu jëlee nguur gi ku mu njëkk a écrasé mooy famille libérale <laughs> famille libérale bon su dee ñoom mën nañ def dépassement boobu pourquoi pas man awma ci benn problème surtout déjà wax nga bon bokk gis-gis déjà man yaakaar naa ci ñoom la bokk ci ci ñoom la bokk y a une partie du dem na fa <laughs> ci ñoom la bokk Mm-hmm. mais noyau dur PDS bi boo xam ne man ñu koy xam ne représentatif au plan national bon bon pour porter l'héritage historique du PDS am nañu seen candidat bon léegi su dee par exemple c'est dans un processus de lu ñuy wax rationalisation de l'espace politique à travers bi nga xam ne day am ay famille mais man euh, aw ma ci benn problème mais en même temps en même temps su dessiné wu à famille na la tudd à socialiste aw ma ci benn problème <laughs> mais famille yu émergente mais yooyu yëpp ay euh, famille cosaan la ci man ci politique wax dëgg yàlla te politique bi tey dafa laaj leneen <laughs> dafa ñun fi wax dëgg yàlla Afrique fi mu toll te am na exemple Mali am na exemple Niger am na exemple Burkina Faso te day a law ah, ah jeunesse bi nga xam ne ci xoolal dernier recensement bi Sénégal yi am trente cinq ans moins de trente cinq ans ñoo ëpp ci population bi donc aujourd'hui soo xoolee nan la tudd xale yi jeunes yi ah, très important mais jeunes ay ki famille libérale ay famille socialiste idéologie yooyu seen problème pragmatisme mooy seen problème pragmatisme yi lan la aujourd'hui mooy force ba nga xam ne souverainiste patriotique ah, force panafricaine def reconquête bi ñuy wax nanguwaat suñu bopp sur le plan économique nanguwaat suñu bopp sur le plan politique hein c'est-à-dire France bu bu ñu tegoon ba léegi képp ku fi ne da ngay yore agenda politique di ko wéel c'est-à-dire c'est condamné c'est condamné nit ñi duñ la topp en tout cas jeunes yi duñ la topp duñ la topp parce que lan tey lan mooy enjeu parce que bala ngay wax ay famille famille famille lii famille lële famille lële mais lan mooy grand enjeu yi lan mooy le grand défi politique bu ñu am actuellement jeunes yaa ngi fi amul xëy ba mu jaral leen ne tey dañuy jël gaal di dee di xaru bon chaque jour rek ñu ne voilà daal dem nañ ñu dee nañu fi le lendemain ñu bon on continue mais c'est extra c'est terrible ay événement politique passé na fi entre mars deux mille vingt et un ak juin deux mille vingt trois c'est incroyable musul am sur le plan politique est-ce que toog nañu ba waxtaan ci yooyu est-ce que par exemple aujourd'hui c'est une question wuyu cinquante ans ñu yore pouvoir bi soo yore pouvoir bi pour def lan <laughs> Sénégal yi dootuñu nangu kenn yore même cinq ans dix ans bu la neex def loolu kenn <laughs> Donc pour Mano, bon, il a tout à fait le droit, euh, familium, c'était par exemple pour rationaliser moi, un grand, grande famille politique, il y a des euh, leeral kii politique bi et cetera dindi confusion bu fi am fexe ba nga xam ne suñu dem ay élection quatre ou cinq grands courants ñooy kii pourquoi pas <laughs> c'est le peuple sénégalais moo war a décider voilà Mamadou Wane ñu gis ne aussi am na guerre des chiffres si diggante euh, Benno Bokk Yaakaar ak opposition bi euh, Benno sax ñoom nee nañ am nañ trois virgule euh, cinq millions de parrains gis nañu aussi si côté waa Pastef ñu ngi wax dañuy ut trois millions wala plus naka nga gisee guerre des chiffres boobu am si diggante parti politique yi si wàllum parrainage bi. xam nga man guerre des chiffres pour man pour man Euh, du ma du du du ma euh, c'est-à-dire man su may analyser du ma jël loo ki nga xam ne moo yore pouvoir parce que yore pouvoir responsabilité bu rëy la <laughs> yore pouvoir soo waxee am nga trois millions presque sept cent mille presque am na sax démb ñu ne quatre millions dépassé na quatre millions te Sénégal yi tax fu ñu dix millions seen suñu pas millions de parrains soo ko amee <laughs> ça dépasse même ñu voté woon ci législative yi quatre millions soo ko amee ça veut dire ñëpp dañuy génn da ngay si nit ñi di rang ay fil interminable kenn gisu leen mais fan fan lañ aw par exemple parrainage mënoo ko def dans la clandestinité te mécanisme lu gën a am importance donc ku nekk ci nguur si ne am naa am na lu muy fexe non dëgg la man man par exemple dama ko dégg rek sama xel ñaaw <laughs> ñii am na lu ñuy waajal bokkul maintenant ku def opposition mu ne woy am naa cent ou am naa un million ak yooyu bon et cetera ça rien à voir ça rien à voir man waa Pastef ñëpp gis nañu comme ni nga ko waxee nii parce que tudd nga leen ma tudd leen mais gis nañ leen ci marchés gis nañ leen ci gars yi ñu rang gis nañ leen bon am na ñeneen aussi ñu def parrainage gis nañ leen ñu dugg ci mel ni génn bon et cetera parce que parrainage aussi c'est un moment démocratique nga xam ne da ngay génn waxanteeg nit ñi pour man c'est très intéressant le parrainage parce que day permettre le côté politique ci parrainage mooy day permettre benn contact avec les citoyens parce que voilà une modalité nga xam ne dañuy replacer citoyen au corps mais yow soo ko bëggee forcé jékki-jékki ñëw ne am naa nii te démontrer woo ko nan nga il faut nga démontrer ko il faut mu am évidence indicateurs yi ça doit être indicateur nga xam ne dañ leen di gis te popul popularité boobu amuñu ko mënuñu ko am ci diggante élection lan la tudd parce que élection yi lañ koy nattee parce que en matière soo nekkee ci science sociale <laughs> jumtukaay yi nga xam ne moom ngay jël pour di saytu mooy nga xool dernière élection yi dernière élection mooy élection législative pratiquement gars yi dem nañ ba cinquante cinquante te soo demee ci kii wu par exemple na lu tudd le vote populaire opposition bi moo leen ëppoon dégg nga soo demee élection na lu euh, euh, pour mairie yeeg département yi euh, comme ni ñu koy waxee élection locale le pouvoir a perdu de très grandes villes <laughs> très grandes villes les quelques rares villes yi nga xam ne par exemple métti na nii c'est à peine normalement si c'était un truc à deux tours amul fenn fu ñu jàll ñoom premier tour <laughs> amul fenn élection législative amul fenn c'est rare bon yàlla na ma yàlla baal xawma mais amul fenn fu nga xam ne ñoom par exemple su doon un scrutin majoritaire à deux tours comme élection présidentielle mais ñoom par exemple peut-être est-ce que daañu am deux ou trois députés j'en sais rien donc ci diggante bi nga commencé nga ne woy j'ai trois millions te nañ waxante dëgg parrainage fii c'est comme vote la su dee dëgg rek la ñuy wax parrainage fii vote la vote la parce que en principe man du ma pare du ma parrainer ku mu dul votel d'accord sauf maintenant ku mu dul votel su ma xamee am na parrain man ma bëgg ci par exemple peut-être yooyu euh, intellectuel yi ka ñoo koy def par exemple nga bëgg ne par exemple bon jàppale le jeu mu nekk jeu démocratique comme en France à un moment donné amoon na risque Marine Le Pen du am du am parrainage même premier ministre bi mu ngi doon wax ni ci yi jox leen nañ ko jox parrainage parce que bon on ne peut pas écarter ko mel noonu alors que ça ici bon jëm pas di jox ay exemple ay France ak parce que aussi fu ñu génn ci yooyu mais dama la bëgg wax rek parrainage c'est un moment de l'animation démocratique de rencontre avec les citoyens ça doit être visible bu ñëw naa rek bon kii jox na ma tëj bu ñëw ma ne waaye kii daje voilà indil na ma saamu na la tudd <laughs> saamu parrain diw indi na deux cent mille kële indi na un million et cetera et cetera non <laughs> c'est un moment d'animation parrainage aussi, à mon avis, il faut donner la chance. Mais euh, euh, euh, même candidats yi nga xam ne sont pas populaires pour ñu mën a bokk ci ci ci ci ci la tudd élection yi parce que am na xëy na am na xam ne amuñu popularité mais seen offre c'est am na xam ne dañu am ay offre ñu nga xam intéressant pour permettre à l'électeur pour permettre à l'électeur nga am offre diversifiée c'est comme soo duggee marché soo duggee ki kii day jaay jën kale jaay kale kii jaay lii kale jaay yële yow tu as la possibilité jënd ci kii soo siw nga jënd ci kale qualité bi mais suñ ko bëggee réduire foofu la ñuy njëkk par exemple à mon avis violer les fondements de la démocratie waaw merci beaucoup Mamadou wan en tout cas ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi. waaw d'accord ñuy fàttali ni voilà sociologue nga nekk expert en analyse politique et sociale ñu lay remercier ci tontu bi nga tontu suñuy laaj jërëjëf. tontu suñuy laaj jërëjëf. tontu suñuy laaj.